baadil maskurati ginnaaw yi ñu tudd da ca toppaat ci yi ñu gën a taamu ci xam-xam nee na mooy jumtukaay jumtukaay yi mooy xam-xam yi nga xam ne daf lay tax a xam alquran tax laa xam xadis ndax tafsirul quran boobu mu di la wax du të du doon loo xam ne da ngay mën a tëb tëb rek daal di koy xam dafa am ay matières ci xam-xam yoo xam ne ñoom ngay jàng ñoo lay dimbali boo ko gisee alquran mën a xam la ci suñu borom subhanahu wa taala di junju boo tiimee xadis tam mën a xam lan la ci yonente bi alayhi salaatu salaam jublu fànn yi ngay jàng nag ngir mu jàpp na la loolu yenn yooyu ñoo ci toppaat ci yi nga xam ne ñoo gën ci xam-xam day mel ni yooyu nag danga koy laaj ana ban moo ci gën boo leen doon boole ban ak ban a ci gën mu lay wan ne boobu moom ay fànn la yoo xam ne dañu la wax ne ne bii ak bii bii moo gën bii bii moo gën bii waaye dañ lay wan rek ne la bu ci ëpp njariñ moroomam rek dal di koy gën moo tax ma ne aani la ma ci jiblu mooy xalal xasabi nekk na ci kem darajay bu bone nekk na ci kem jàpp bu ne xalal yaahudaatu yéen way na alaat yooyu nga xam ne ay fànni xam-xam nañ yoo xam ne ñooy jumtukaay yi lay tax a xam alquran ak xadis ñen yooyu moom nu ñu gënantee mi ngi mm, tolloog benn bu ne njariñam na mu toll daal ne la naxwi lu mel ne naxwu bu ci am njariñ lay doon ndax naxu fànn gu am solo la goo xam ne boo fekkee jàng nga ko te xam ko moom it da lay mën a indil ak jàpp ndal lool mhm. ci man koo xam wala nga gis man koo xam daf lay jàpp ndal it ba lépp lu ñu maasul sax du tee da nga ko mën a maas yow boo ko maasul tam boo ko bëggee jàng danga ko mën a jàng te doo ko yàq ndax naxu mooy fànn gi nga xam ne moo lay jàngal fan la maas ko war a tëdd ci baat bu nekk ak mu jëm naxu ci lim gën a jàngale mooy baat bu ci nekk rek mu jëntalu baat ba lan la war a maas mhm. ndax day maas xaf di ca suuf wala day nasab wala day raf wala day jësam yu mel noonu mooy yi nga xam ne naxaw moom la lay jàngal ak itam bu dee nasab lan lay nasabe bu dee rafaa lan lay rafaaye bu dee jësam lan lay jësame yu mel noonu nga xam ne naxaw daal boo ko mënee moom da nga mën a fekk mbind mu kenn maasul nga maas ko te doo ca juum da ko mën a jàng itam buñ ko maasul te ci yàq kon fànn gu am solo la moo li ñuy wax euh, tasrif tasrif moom it moo lay jàngal baat bi araf yi ci digg bi fan la war a maas lépp ci naxwa li mu lay jàngal mooy arafu mujj ba ci baat ba fan lay maas waaye tasrif moo lay jàngal nag araf yi ci digg bi moom fan la war a maas moo araf yi nga xam ne ñoo ne ci njëlbeen gi kon ñoom yu am solo lañ ci wàll googu wala bi ak arud arud moom moo lay dimbali ci way ba bu fekkee da bëgg a def ay bayit di way mu mën a peese wu ba nga xam ne ku xool way yi xam ne tege na ci aw yoon wal bayaani ak ilmul bayaan ilmul bayaan bii mu tudd nag ak maani bi mu jeexale bayit bi ñoom dañoo bokk ci fànn balaaxa su fekkee da ngay jàng ngay fekk maani ak bayaan bi ak badix yooyu itam fànn gu am solo la bokk na ci yi nga xam ne mooy dana tax nga am ak dégg ci alquran wal lugatul arabiya mu wax ne lugatul arabiya nag moom it daf lay dimbali moom it ci nga mën a gis baat xam lan lay tekki hmm. nga xam ne daal boo koy xool kon ci njëlbeen gi lu mel ne naxwu bee mu wax ak lugatul arabiya mooy yi lay gën a yitteel ci njëlbeen gi ndax luxa moom mooy tax boo gisee baat xam lan lay tekki su ko defee naxwu moo lay dimbali ca boo ci bëggee wax na nga cee waxe kon day mel na ñaar yooyu ci njëlbeen gi ñoom ñooy ëpp solo teewul nag boo demee ba egg ci foo xam ne léegi loo ci gis rek mën a xam la muy tekki mën a xamit nañ koy maase ak nañ cee waxe yeneen xeetu waxin nag ya nga xam ne day aju ci balaaxa nag su boobaa lay laaj nga xam lu melni bayan ak maani badi yoy daf lay dimbali nak ci deug deug seen uslubu waxin yoy noonu waaye kon man nga gis dal bo don wax lepp njariñ mom da naka man nga wax nahwu ak lugha ci jël ben gi teew nag yi mu tuddi yëpp rek yu am njariñ yo xamne daf lay dimbali ngir nga mën a xam alquran ak hadith moo tax mu nekk nahwi wal arud wal bayaani wal lughati al arabiyya wal maani وأفضل العمل سين بيجال وخلا مو جن تجف وأفضل العمل اللي جن تجف نك لأن ما مو يجف جو خمنا رك تعددت لي لمنا له نيالكو فوائد الأنجرين يعني اللي جن تجف مو يوم منا خم مو يجف جو أبنجرين مرة ممرك دل دي كوي جن جف مو لمي جن مرة مم مو أبنجرين رك ginnaaw boo xamee ne ku koy jëf jëf na ko ngir yàlla te defee ko nañ ko diglee la ca des moom mooy ku ci ëpp njariñ moroomam rek daal di koy gën daal ci indi di boo xam ne xat sabat sax na ci di def lii muy bëgg a boo xam ne daa sax ci di def lii dara du ko gën mooy lan an jahli si jahlin maanaam xam-xam boo xam ne daa sax ci yadfa'u di jiñ yadfa'u di jiñ an jahli si jahlin ci réerug boroomu réer boo ko ak ak mbon xam-xam boo xam ne nit ki daa xam-xam bi daa ne ci moom tam di ko jàllalewaat di ci jàngale di ci yare nga xam ne daa dëkk ci tàqale nit ñi akuk réer di leen tàqale itam akuk mbon nee loola dara melut ne moom wa kulli maa lépp loo xam ne rek yan fanu dana jëriñ li charra chari ñeel borom mu njub ak bépp xam-xam boo xam ne mën naa jëriñ nit ku baax bépp xeetu jëf bokk bépp xeetu jëf boo xam ne mën naa jëriñ nit ku baax ndax xam-xam bi ngay jàngale loolu jëf na amal la yaa ngi koy jàngale di ci tàqale nit ñi ku réer waaye itam yaa ngi leen ci tàqale ku mbon ndax yaa ngi leen ciy tarbiya mu ne nag wa kullima li wa kullima ak jeneen jëf ju mën doon joo xam ne rek yan son dana jëriñ li chercha di ñel boroom njub kon jëf moom li ci gën rek mooy jëf ju ëpp wama ak lépp loo xam ne it yu saf yi dana sellal alxal ba xol ba ne lépp luy laabal xol rek ci jëf ju baax yi ñu taamu ci la bokk daan ne te luy sellal xol nag waxu moom maa mooy loo xam ne uddiimu saxaleef na minhu ci moom te ne liy laawal xol moom foo ko fekk lu ñuy saxal lay doon wayen xulli la ak donte néewaleef na ko sax xaaluhu wax na ko alxakimu aji bare ja xikam waxoon na la saa bu waxee xaala rek imaamul Ghazali moom moo wax loolu nee na lépp luy laabal xol rek ci jëf yi am njariñ ci la bokk waaye nag liy laabal xol di ko tës gi foo ko fekk rek lu nit ki taxoo lay doon da koy saxoo muy jëf ju baax mën naa bari mën naa néew waaye day laaj ak saxoo muy jooñu sa xol di ko fóot nànk-nànk ba sa xol set nga mën a yëg sa boroom subhaanahu wa taala wa kulli lépp loo xam ne sa saxu la diis na ala nufus ci bakkan yi lépp lu ba lu diis ci sa bakkantam ci xeeti jëf yi xamal ne ci jëf yu baax yi la bokk te misli infaqin ndikki ak dundale li shaxsin ñeel jëmm joo xam ne baxi la nay na mel ni koo xam ne yëgul ci boppam ak tàlli daal taxul mu sawar ci joxe alal nga xam ne bu koy joxe day diis ci xorom kooku nee na wet googu mu ëpp doole ci moom sax rakaat yu bari yu muy julli ginnaaw yëg na ne yàlla jox na ko lu mën a joxe te joxe ko daf koo jafe mu jihaat ak bakkanam ci nangoo joxe te yàlla tax ne loolu mu ëpp doole ci moom sax yeneen jëf yu bari jamono bu nekk rek la sa bakkan bañ ñaare mooy ëpp njariñ ci yow dañu bëgg nga gën koo jëntal ca loola wa saw mi ak koor li sharhin ñeel aji foqale ki nga xam bëgg lekk lool ñaare koor mooy gën ci moom kooku koor lu baax ci moom lay doon nga xam ne moom ñaare tooglu diir daal te naanul baa mu lekk moom yomb ko te sax du doon xiif bu koy sonal waaye xemmim lay doon rek moom nga xam ne daa bëgg lekk noonu rek kooku daanaka muy nat bakkanam di woor day baax ci moom lool wal li ak giim giim muy nëbb bañ a feeñ li muqtasi shaharati ñeel aji sàkku ak ciwte wa tafdil ak gënal nee koo xam ne daa bëgg a siiw fu mu toll rek day bëgg ñu di ko gis ak a dégg nee na ko mel noonu moom nëbb moo gën ci moom li ñuy wax xumóol muy bañ a feeñ fépp foo xam ne jàpp na ne bu fa demee fu ñu ko yëkkatee la baa fu muy siiwee mu di ko moytu di nëbb di nëbb boppam nee na moo gën ci ki nga xam ne dafa yëg ci boppam bëggu siiw Mhm. ko xam daal daa bëgg nit ñi teg ko ca kaw rek di ko yëkkatee ko fonk ka defi yëf daal ak ñi di ko dégg loolu moo tax ma ne wax tafdil bëgg nit ñi daal def ko muy ku baax koo xam ne ca kaw lañ koy teg fonk ko di ko waxtaanee ko tudd rek loolu moom bay waa rek muy nëbb boppam mhm. incha allah kon bu ñu dikkaatee rek leeral sëñ bi lim ci teg muy li gën a bon ci jëf yi waxi li gën a baax ci jëf daf cee teg leeral li gën a bon ci xeeti jëf